léegi kay te la justice qui va avoir un problème avec la justice magistrat bu nekk nga def sa examen de conscience boo wéetee yow kese du ñëpp nag parce que dans cette histoire dafa am quinze au maximum wala truc yu mu concerné def leen seen examen de conscience ndax nag ci taarixu réew mi ci histoire réew mi lii dëgg mooy seen tur dina ci weng wéeg nga ñu leen gis di xam suba buñ koy jàngal xale yi di jàngal xale yi ne lii baaxul magistrat diw moo ko daan def magistrat diw moo ko def kon lii loo xam ne waruta am ci réew mi la yow boo màggee comme dangay jàng apprenti juriste nga bu ko mës a def am nañ ci ay cas d'école yu baree baree bari yoo xam ne après ñiy jàngale war nañu mën a toog ne nag xam nga non parce que xam nga tax may wax loolu Kéba mbay dañ koy joxe comme modèle ak ñeneen ñi ñoom Kader booy ñoom Serigne Diop dañ leen di joxe comme modèle mais doo jël Ismaïla Madior Fall di ko jox sa doom comme modèle je suis désolé ah doo ko def. kon magistrat bu ne nekk di nga def sa examen de conscience loi d'amnistie bi nañ ci taxaw ak i poñ benn par benn te mbëx ko mooy lan ñu ne projet de loi des délits yi nga xam ne crimes yi am premier février deux mille vingt et ba vingt cinq février deux mille vingt quatre vamos ay ca ñu dem ci lu fi xew mars deux mille vingt et lu tax ma ne la loi bi du suñu loi du pour loi détenu yi du pour ñu ñu tëj déedéet pour ñoom ñi def njombe yi te njombe yi lay lim nag mu bëgg ngeen déglu ma bu baax njombe yi lay lim mars 2021 lañ wax 14 jeunes lañ rey fukki ndaw ak ñeent juróom ñett ñépp bal lañ leen reyee teel ñu dee ku leen rey kan moo leen rey dama ne mars 2021 la tàmbali 14 jeunes fukki ndaw ak ñeent lañu ñu rey juróom-ñett yi bal lañ leen reyee ku leen rey juin 2022 ñeenti jeunes la ñu rey ñaar ñi par bal ku leen rey bu ñuy effacé nañ xam lu ñuy effacé parce que lu ñu bind ba pare la ñuy effacé mais lii dafa na weñ ni béjjën ci kanamu jë mars 2023 deux jeunes lañu rey kenn ki par balle kenn ki nervi yi ñoo dawal ci oto jaar ci kaw bopp bi am na fi walla amu fi ku leen rey mai 2023 trois jeunes lañu rey par balle ku leen rey juin 2023 30 jeunes tués 21 par balle trente jeunes 21 par bal février 2024 quatre jeunes innocents ba ñu reporté élection yi waaye waaye dañ fàtte aji jàlloo manifestation yi ci ngor ak kan mari ngom ca ngor ba tey mais sénégalais yi bëgg nañ xam lu xew ci mbiru François Mancabou voilà am déet DJ Badji Fulbert Sambou bëgg nañ cee xam dara lu leer amul benn sénégalais buy toog na bugguma xam ci François Mancabou ak DJ Badji ak Fulbert Sambou dara déedéet ñëpp ba bëgg a xam naka la demee man da bëgg naa koo xam ndax tuumaal nañ ma le na man maa leen faat DJ Badji ak Fulbert Sambou li may wax yépp fii la am Sénégal gii Sénégal gii la amee ñaata innocent ñoo ci jege jege fi am ay handicap yu dul jeex ñu ñu mutile leen ñii ballal leen dóor ñu gaañu ilaa yow mi diini maanaam am ay laago yoo xam ne moom la ñu fas yéene dund ñu jàpp ci yenn conditions yi nag vidéo yaa ngi yëpp maa ngi ca waxtaan ak Juan bala passé vidéo yi mi ngi circuler yépp gis ko loolu yëpp ci réew mi sénégalais askanu Sénégal waxuñu bëgg ñu xam nu mu demee de bëgg nañ xam nu mu demee bëgg nañ xam tamit nervi yi milice arme yi nga xam ne dañ leen jox ay arme de guerre ñan ñoo nekkoon riigu ci nguur gi am koppar dem recruter leen ñu nekk ay vrais génocidaires ay reykatu nit ñu xam leen ñuy topp di wër ay jeune Pastef di leen ciblé. fii la am réewum Sénégal du feneen kon bu coow li di bari na nga na tekk coow li di am yépp ne woon naa la dinaa wax ci loi d'amnistie bi wante man fu may génn loi bi seen loi la du ab sam lu gaa li <laughs> Pa Assane di wax du sam loi seen loi la xam naa war naa kontaan ndax am na datam ñoom ñoo bëgg a faase li di wax ñun dañuy wax effacé ñoom ñoo bëgg a faase faase seeni crime jël seeni nit tey ni reykat nit yi nga xam ne jëloon nañ leen ñu def loolu ñoom ñoo leen bëgg a faase ak commanditaire yeeg ñi leen yombal mbiri ñoom ñoo bëgg a faase crime yooyu mais du askan bi déedéet sénégalais yi nga xam ne seen deret dañ koo sottee sottee sottee sottee sottee ba réew mi màndi deret ca booba ñaleen leen di rey di am promotion ñu mën a sosalaate inventé ak wax lu ñaaw di am promotion ci bakkan yu rot rek ñu ngi ci quatre-vingt-cinq juróom-ñett fukki nit ak juróom ñun waxuñu bëgguñu xam lu xew de dañ ne dañoo bëgg a xam ñooñu ku leen rey ak lu tax ñu rey leen torture yi duñ ci wax torture yi duñ ci wax yéen a ngi dégg témoignage yu xale yi Pape Abdoulaye ture waaw li mu dund noonu moom toog na fii démb ne man bugguma dama bëgg a xam nervi yi ma jël ñan lañ ñu ne ko non Pape Abdoulaye waroo koo xam toogal dañ leen baal nga ne leen oho bugguñu li ngeen ni ngeen ñu bind yëpp garaawul bu leen ñu baal na leer <laughs> nañ waxante dëgg na leer yéen a toog nañu man da ma jiiñ appel à l'insurrection da ngeen ma yee may nelaw ngeen na ma appel à l'insurrection du ma dof nag xamam xam ngeen na yéen su ma leen gënul int parce que xamante nañ su ma leen gënul intelligent gënoo leen ma intelligent xam ngeen ne mënoo leen génne ma dem toog ngeen bindal ma mettez su mandat de dépôt sur la base de l' article 316 mettez sous mandat de papa pour de probable trouble yu dul ñëw te yomb na trop bëgg nañ xam ñi recruter nervi ak ñi daan toog di wax ne pour mettre Sonko en prison il faut neutraliser Pape Alé loolu bëgg naa ñëw téye la ñu may wax ne ma ba may bakkan yu rot ba ci lim ñuy wax na toll nañ ci quatre vingt cinq ak yooyu xanaa war nañ xam kan moo leen jox ordre na leen on vous leen l'impunité Cheikh Wade parcelle def nii drapeau Sénégal la yor policier bi visé ko ba mu neex ko tiire ci bopp bi mun a këlëb daanu ormal xanaa police war na sax ormal teneem boobu ne tenue bi nañ ko dindi parce que waa ji kat lim def nii assassinat la mais ñun sénégalais yi waxuñu bëgguñu koo xam de bëgg nañ koo xam te baaluñu ko parce que xale bu ndaw mais lenn leer na moom ci leer nañ mooy gouvernement bi régime bi musta kenn woowu la yaa def sa conférence yow toog quatorze morts avril nga ko defoon ne société civile da ciy bokk ñëpp dañ ciy bokk ba nga koy wax ba tey va des enquêtes amul ba tey li ngeen waxoon kay te moo nekkoon seen logique ñëpp xam ko xama mooy lan nañu jàpp nañu emprisonné nañu torturé sénégalais yi sonn en fait parce que plan bi yëpp c'était clair arrêtons il faut torturer emprisonner tuer on vous garantit l'impunité en fin de compte on va négocier une loi on va négocier une loi d'amnistie mais xam nga loo leen fàtte mooy famille yu bëri bàyyi woon na fi ñu ko état bi parce que gaw mën a amnistie des faits fii dina tax lee gaa yi sumb fole ci bitim réew ak ay juridiction parce que bët yooyu lan leen di xoole ah j'ai beaucoup d'amis youtubeurs ñoo xam ne j'étais là pendant les derniers événements bët yooyu lan leen xoole xoolee ce tous les éléments le peuple sénégalais a souffert dans sa chair mmh. on a vécu des choses abominables ay nit yuy toog di inciter ay meurtre di inciter à la haine kenn mënu leen fàtte te duñ bees nag seen kanam am leen fulla ju toll ni ñoo xam ne bu ñu taxawee di wax ngeen fàttali leen seen waxi démb ak bërki démb